Euh, du am violence comme nous ma ko tout à l'heure mais mais lance appel population BIEP, au-delà même de Sangalkam comme nous ko président Macky Sall voté Nous ñu ñu def ko ci euh, démocratie Le Sénégal dafa am la démocratie bi taxaw Le président Macky Sall gën Nous, euh, nous à la base dañu devons aussi veiller à cela de lancer un message pour que nous ñi voter massivement gis bi eh, yéex na démarré fii en tout cas huit heures fekk gul ba huit heures eh, fekk démarré gul fii yéextaay boobu est ce leen ne eh, mën na andi njeexital ci résultat yi. non du ci am benn impact man neuf heures laa waxoon neuf heures mu ñëwee wax dëgg yàlla. fekk na askan wi yëpp ñu ngi génn gis nga bureau de vote yëpp ni ñaa ngi rek di vote donc loolu du am euh, incidence mën na am trente minutes de retard bon loolu du am impact ci ñi war a voté incha allah ñi ñëpp ñu bëgg voté nañu ñëw li ñu leen di ñaan rek moo ñu teel a génn teel a voté ñibbi ci jàmm ak salaam ñu xaar proclamation résultat yi bu bu ngoonee. waaw loolu moom amul benn doute fii incha allah ci <laughs> commune Sangalkam suñu ndam moom loolu taux bi rek la ñuy jéem a xam fan lay war a toll mais ndam bi moom amuñ ci benn benn doute incha allah.